sëñ bi Ibrahima Ndiaye Chita ñu ngi lay nuyu. maam Faye. yow yaay manager général bu équipe nationale euh, bu Sénégal Beach Soccer muy kon ñëngatu ci wàllu footballu tefes gi mu desee ñu daanaka ay waxtu ngir ñu amal coupe d'Afrique bi kon fukkee lépp yoon euh, ci Sénégal lay doon gannaaw kon li des bëreetul euh, ci ban anam benn état d'esprit la équipe bu Sénégal nekkee jamono ji sant yàlla rek la ñuy tàmbali ba pare. di wax alhamdulilah rabil alamin parce que lii gént la woon goo xam ne gi nekk di dëgg alors fi mu ne nii li ci des c'est vrai bareetul ah tey la tey la jom euh, euh, samedi dimanche ñu tàmbali jongante donc Ouganda la ñuy daje euh, wax dëgg yàlla li ci war yëpp fédération def na ko accompagné par le ministre de sport li ci war yëpp Sénégal def na ko mm-hmm. donc li ci des léegi mooy xale yi wàcc ci tefes gi maanaam jonganteex ñu ñu war a jonganteel seeni xarit yi jóge ci yeneen yi ñëw fekk suñu fii donc loolu rek kese moo ci def. Mmh. waaw euh, ñaaxeel bi mooy euh, dëgg naa naam kon euh, technicien nga technicien ngeen mais ba xam seen xel dal na ci anam ñu war a amalee compétition bi organisation bi lépp lu ci war. bu xel dafa mës dal ci xale yi depuis 2007 ba léegi maa maa ñoom xel daf ci mës a dal xel daf ci mës a dal ba tey jii sax gën a raw. dama ci profité aussi. di di nuyu suma rakk. Mmh. Amadou. parce que moo xale yee ko tàmbali woon 2007 am lu mu fi def tey jii ba tey jii rakaam ngaale ma ne woon jouram tey jii moo yore hmm. def ci tamit loo xam ne li macha allah boo tey ma ma di ko accompagner bu sama xel dalul woon may toog suma kër fa vacances du ma sax buutee parce que nag euh, am na yoo xam ne moom euh, rus naa sax mu di ma dal ci kanamu Sénégalais hmm. donc c'est pour vous dire que ne ñii fi ne nii sax ko am hmm. def li su fukki xale ak juróom mu am ci fukki xale yoo xam ne yi gagné ku ci jour Coupe nga mm-hmm. ci fukki xale yi juróom. Euh, amul benn équipe bu ko fi am. Mm-hmm. léegi ci côté organisation bi ndax def ngeen euh, nemmeeku fa ñu koy amalee conditions yi ndax lépp yemb na ngir compétition bu mucc ayib. man sax premier euh, def naa ci ay jéego yu bari ñëw naa fi xool terrain bi waxtaan et cetera. mais bi président fédération nga xam ne ne aussi daf ci amaat ndomb tànk. premier vice euh, président bu kaaf kaaf mmh. organisé mmh. mu wax ci li mu ciy wax man amatuma leneen lu mu ciy yokk parce que moom bu demee ba wax ne wax dëgg yàlla jëfi euh, tegu yoon man ma gis photo yi ñoo xam ne yii dañuy ñëw ay Nigéria lañ parce que dañoo am benn kii bu ñu union bu ñu créé mu union africaine de vice ko bu ma leen ko yónnee président ak secrétaire mu ne ma ndax chaise yi dama ciy toog wala déet ma ne ko di ci toog kay parce que tellement c'est tellement beau mmh. euh, président la mu wax aw ma leneen lu ma ci yokk moom bu ne moom xolam sedd na ci li mu gis ah ma ne dama naa mel ni sama xol sedd mhm. Goulet ñuy amal Coupe d'Afrique beach soccer ci Sénégal euh, gannaaw kon ba nu ko sosoo 2006 ba léegi lan lay def ci yéen acteurs yi ngeen jongante ko ci seen biir dëkk. xam nga nee naa xale yi il faut savoir quand même euh, histoire dañ koy bind dañ koy bind juróomi coupe ngeen gañu ko bitim réew yàlla def tey ñu waroon ko sax Euh, Sénégal ñëw jël ko mais Sénégal bu ko jëlee c'est parce que autorité aussi dañ ko nangu. Mhm. et autorité yi ñu la euh, monsieur le président de la république bu joxee accord am na d'accord jël euh, donc dañ koy sant yàlla. parce que ñun peut être ñu ngi doon xalaat ay deux mille vingt quatre ak yooyu yàlla def tey jii ñu euh, nga de euh, ni alors euh, def nañ ci li ci war yëpp ba nga xam ne ne bii ñoom sax am na ay infos yu ma parce que am na ñoo leen wax dëgg yàlla kontaan nañu lool lool lool ci dèjà ni ñu leen recevoir surtout waa Îles yooyu wax dëgg yàlla kontaan nañ ñoom ñëpp mm. te ñun loolu la ñuy wut parce que nag lii aussi day dajale les jeunes de l'Afrique ñu mën a jongante mm-hmm. mais au soir du vingt neuf moom Mm-hmm. <laughs> on va les remercier. Euh, puis on leur dira que bon, il faut mm-hmm. mais ah, ce que forfait wu RDC lu mu yàq ci mbir mi. ah, ah gën a wàññi compé kii bi euh, léegi foo waroon a jouer quatre mm-hmm. euh, mais boo qualifié fraîcheur bi fa lay nekk. ñu la nekk fa la nekk quatre. mais avantage la ci yow euh, dafa mel ni yàlla moo ñuy am yu mu ñuy yàlla na doon loolu nga xam ne moom la ñu mbébét mooy ko bii déjà Ouganda nee na defuma ñu andi fii ñu ne ne ci kële ne man ñëwuma ñu nekk ñett donc euh, ñun ñaari match rek la ñu la nekk fële dinañ joué ñetti match ba pare joué demi finale yow di nga am temps de récupération tey jii tey ñii match dimanche bi boo ko gagné mhm. <laughs> mais daanaka calcul euh, euh, yëpp ay ay calcul da nekk ci biir je dis mais je gagne ce match-là contre l'Ouganda. Mhm. xaar xaar mhm. da ngay toog xool leen léegi ñu wax euh, ci euh, compétition bi ndax ci euh, biir mbas mi la nekk yëf yaa ngi fii ba léegi moo taxit ñu jàpp ni juróomi téeméeri place juróomi téeméeri place kon la ñuy mujj jagleel askan wi mooy supporters yi public bi loolu da xam ne mu wàññi ak liñ leen waroon pousse dëgg ndax xam nañu solo. public euh, ci compétition yu mel nii. non euh, mais nag wér gu yaram ñi nit ñi moo ëpp solo fuuf compétition bi. Euh, te comme na am na ay. tegtal yu ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk football bi wax ñun dañ ciy dem ba mu jeex même bu dul loolu sax suñuy kaso dañuy wax ne ne moytu leen jegeñante bi moytu leen nuyoo bi takk leen ay masque mais loolu aussi ko ko fa deful hmm. mais doo doo fa jege hmm. loolu kay moom dafay leer nañ nañ nañ même dañuy xool ni sax jongante yi am sax bitim réew nga gis ñëpp takk seen i masque euh, distanciation bi am mais fii dañ koy il faut que ñu respecté ko. ñu hmm. ko respecté aussi mais kaaf euh, day dal sa kaw te man xam naa ne fii les autorités sénégalaises la mais duñ ko nangu parce que lu ñu ci wax tamit. kon dëgg yalla mbas maa ngi wàññeeku ndànk ndànk mais tamit du tere aussi ñu ñu ne rek mbas maa ngi wax garaawul quoi bu ñu takka masque buñ mais ku fay dugg la stade sax mais ku nga jegee sax da nga war a takka masque nga dugg ñëw di mais dañ na cinq cent places bu ñu mënee am trois sax moo gën mais euh, loolu ëpp ci solo Hmm. loolu lépp amul solo mais doomu aadama danañ ko sàmm ba mu mat hmm. ñu wax càkk ci aspect sportif bi ci boppam Sénégal kenn du ko lam-lame moom mooy favori ndax lu mooy euh, statu euh, pays hôte bi moom moo ëpp li mu jël ci ay ndam juróomi yoon ngeen jël kon euh, Coupe d'Afrique bi ak premier nation africaine bi ngeen doon ci wàllu beach soccer ndax yenn saa tamit mënu ci am excès de confiance. loolu nag moo tax des fois ñu wax leen dëgg surtout ñun ñi nga xam ne bii euh, joué nañ fu ne. Mm-hmm. défendre euh, Sénégal fune ne. Euh, xam nañ ne ni il faut révenir sur terre te xam na ne daara xew fi a amagu fi c'est au soir du vingt neuf qu'on saura que on a gagné le mais loolu pour que ñi xam ko match dimanche bi moo koy wane mais après match c'est tellement important parce que ñi fi ñëw nii nous nous sommes la cible ça c'est clair ñun la ñoom ñëpp man ñun la ñuy teg bët mais yëf yi ci terrain bi du ci du ci rajo bi wala ci télévision bi ñoom xam nañ ko ñoom seen bopp euh, euh, chance bi ñu am man aw ma ko man aw ma man ci kaw tribune bi lay toog ñoom ñoo ko am ñoom euh, ñoo war a def li ñuy def ñii war a def def li ñuy def ñu jël suñu coupe bi coupe moom xam nañu ne ñoom bu ñu ko gañee di coupe bi dootu demati. Hmm. fii lay des ba ilaa yomi diin euh, euh, bés na wax dëgg yàlla da koy man man de mënoon naa ko su ma bés moom. Hmm. bés koy man euh, donc mais ñun xam nañu bu baax qu'est-ce qu'il reste à faire nous technique tactique loolu moom féete na boor mais li ci des mooy c'est le travail c'est le travail les libérer parce que ci fukki nit ñi nga jël ak juróom fukki. bu ñu joué coupe d'Afrique joué nañ coupe du monde musuñu ko am Amadou ko am ñu yàlla ñu koy doog a nii mais li ci des léegi euh, terrain baa ngi lu mooy kon euh, ndam lu muy euh, coupe bi ci boppam ndax am na leneen li ngeen ci mbëbët bu ñu waxee tamit ci ay trophées individuels non dama ne ñoom mën nañ ko jël bu mag bi jël meilleur meilleur meilleur meilleur gardien parce que nag wax dëgg yàlla mu ci bëgg a yàgg de du dëgg Alseyni mhm. Alseyni Ndiaye da yàgg na ci ba ba ba tey ji mhm. donc moom fii mu ne nii euh, trophée meilleur gardien euh, war naa wax na leen lii moom nañ ma ko bàyyil foofu rek meilleur buteur aussi ñoom ñu xëccoo ko ñoom seen biir bëgguñu fi bàyyi dara le fait que ñu recevoir leen fi rek ganalal leen doy na set léegi nag nañ ñu bàyyi trophée yëpp ñu ñaanalante ñu ñaanal ñu dem coupe du monde def aussi la war a def. Hmm. Euh, ci biir euh, fédération bu football. mën nañuy wax sax yeneen discipline euh, daanaka ñi tollook yenn palmarès jaar-jaar bariwul beach soccer ak li ngeen def yëpp ndax yaakaar nga ni jox nañ leen gëdd bi war. ah kay xam nga ñun ñii <laughs> des fois <laughs> da xadaar ji ak bëgg-bëgg bi moo leen di yóbbu des fois même ñuy wax mais euh, le fait que même bu ñu ne président recevoir ak yéen euh, jërëjëf kooku bàyyi nañ ñu xel. Mhm. mais bés bu ñu président waree recevoir nañ recevoir est ce que du doon bii sax bii. Hmm. est ce que du doon bii. <laughs> mais est ce que pour mu doon bii nag. mais sama gars yi dañuy jël ko bii. ministre bi dem ba li mu wax dem ba leer na nañ seen kanam. Hmm. nee na xam naa ne di ngeen ma posé question pour wax ndax président leen ma ne waaw président dina leen recevoir ma ne waaw. waaye mais nañ jël ko nañ ko jël le vingt am solo euh, te li ci am solo aussi mooy heureusement ñu ngi sant yàlla bi ñu amee président boo xam ne bii dafa bëgg discipline bi comité exécutif bi si ànd ci bu dul woon gañ mais euh, c'est toujours ce que j'ai dit aux gosses ngeen di laaj dara da ngeen di gañe mm-hmm. ngeen war a discipline bi mais bu ngeen di gañe toujours mais ñii ne fi yore nànk football bi mais dañuy xalaat dañ ne mais ay eh, mais déglu leen ay ñii kat wax dëgg yàlla ñu ngi dem di andi ay ndam nañ leen jàppale. Hmm. Euh, loolu le président comprendre ñu ne comprendre man 2015 ba mu ñëwee di ñu seet sa hôtel ne ma xeex nga ba sonn mais dama la xam ne ne 2015 bu ngeen jógee coupe du monde euh, Portugal danañ am championnat na mu ko waxee 2015 ba tey moo am ni équipe bi bu ko buy toog di am presque euh, une brique ak lu teg <laughs> man en 2002 ku ma ko waxoon man la danga may nax waay tey jii loolu am na équipe yaa ngi organisé wu. ñu ngi am suñu championnat euh, ñi yore but soccer bi ba ñu dajee Égypte dañ ne équipe yëpp ba ñu toggee ñu tubaab bi na leen gis ngeen kii toog nii muy Chita mii loolu leen dem ngeen laajte ba xam euh, nan la def ba organiser championnat dëkkam dem leen ngeen laaj ko Ivoirien bi ne non bind seen naataangoo bind ko mu ne man je veux que Chita a fait au Sénégal laa bëgg a def Côte d'Ivoire ma ne ma ne macha allah alhamdulilah mais dafa fekk ñu hmm. mais su su fédération àndul woon kon heure bi hmm. quatre mois de préparation ñu ñu jox la ko. Hmm. mais qu'est-ce qu'il reste euh, pour ces garçons là. mais ñii dañuy moytu euh, teg pression bi ci seen kaw ba nga xam ne ne bii en fin de compte ba moytuwul. Euh, ils peuvent même passer on le sait pas jaar à ko. ngir pression kon bañ am ci ñoom ba tey ci tolluwaayu beach soccer ci Sénégal ñu gis ni lu mooy championnat bi nga lim sànq ah, Sénégal di dalal Coupe d'Afrique ñuy wax sax ab académie bi nga xamante ne dañ ko jagleel formation beach soccer te kon Real euh, Munter euh, di ko kon amal club allemand bi loolu yëpp lan lay firndeel ci tolluwaayu beach soccer Sénégal. mais day toll ne am na liggéey bu fi bu fi ne. Hmm. te ñun yàlla <coughs> luñ ci mënti wax tey ji bu la euh, tey ji est-ce que mën mën nañu la andi waatal yeneen ñetti équipe bi euh, soccer hmm. xale yi demal ci place bi nga xool euh, ñun ci loolu la ñuy la ñuy ne nii moo tax bi waa ji ñëwee proposé ma ko ma waxtaan ci à présent mun a ma mais ñun <coughs> ñun loolu la ñuy ñaan yàlla bu ñu gisee koo xam ne ki dafa ñëw rek pour accompagner pour développer cette discipline là mais dañ koy nangu tey jii mais on travaille dans la dans dans l' avenir boo xoolee équipe nationale bi di joué nii hum mm-hmm. am na ñaari boy yu ci ne ils n'ont pas dix neuf ans le troisième ou deuxième gardien il n'a même pas dix neuf ans euh, am na boy bu ne ni mu ngi euh, nu mu tudd ci ci Salif mm-hmm. Galaxy mais ma ne ko avant-hier tu as vingt ans toi mu ma non aw ma vingt ans j'ai dix neuf ans am na kenn ku ñu bàyyi malheureusement moom it il était avec nous mais il fallait que ñu wàññi Euh, il est de corps. Le aussi, il a 20 ans. Hmm. c'est pour dire que la relève est là. Hein. justement euh, donc il suffit juste euh, dimbali mais nag doo jël lépp aussi wér ko fédération. Hmm. da ngay dem nga seeti ay gis na li Sénégal def. al Seydi joué na équipe am. Thioune def na fa six mois ñoom ñaar. Hmm. mais bi ñu ñibbisee on s'est rendu compte que dañuy am na lu ñu jàng Europe. mu nga ñooñu gën a développé. waa ji ñëw na fi def na li muy def dellu na dina dellu sawaat xale yaa nga fa di di liggéey. te kileen di yor ki leen yor ni ko Paquet ah c'est pas n'importe qui dans ce bitcoin. Mm-hmm. donc ki leen yor aussi xam na bitcoin bu baax. Euh, donc man dama koy accompagner kër aussi bu ñu comme ça au moins euh, li état bi def nii. Mm-hmm. mais jàppale la ci xale yi au moins am tàggat yaram bii euh, léegi du fo économie da ci ne anecdote laa di jox léegi est-ce que xam nga naa man naay français yu nekk nii ñu ngi nii Mbour ku Paquet leen invité. dañuy def ay dons humanitaires. mbuur nii ñu ngi mbuur nii. Hmm. biir su tax ñu ñëw. c'est c'est pour te dire rek njariñ li discipline bi tey jii ñoom ñu ngi mbuur gi di dañ ciy profité waale pour pour def ay ay dons. Hmm. nee naa ko sax bu ñu defee mbuur aussi il faut ñu boole ci salle yi nga xam ne ñu fa la ñuy organiser. Hmm. Euh, tournoi bi ñu ñëw ñu fexe ba gis maire aussi am ay dons yu ñu fi def après ñoom ñu xool euh, nan la ñu mën accompagner kii loolu COPACI. dox na ko ba euh, dimanche incha allah lay ñëw fii euh, tubaab yi egg nañu. Mm-hmm. Euh, ñu nga ñu nga Mbour di ko xaar. Mm-hmm. donc loolu lépp xale yi ko liggéey ah. mm-hmm. président accompagné nañ ci. yow yaay kon ménage yow yaay manager général bu équipe nationale bu beach soccer sëñ bi Ibrahima Ndiaye Chita ñu ngi lay gërëm bu baax. mais nag su ma yóbbatee na egg de. dina yàgg incha allah. waaw na yomb si mbañik ngeen jox ko suma numéro euh, bu ma mu a gis mu woo ma. Euh, wax ma ba xam kañ la ñuy daje aussi ma nit ma ma ma gërëm ko sant ko. jërëjëf merci beaucoup. <laughs> merci beaucoup merci.